الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi sunu mbokk sunu am di jàmm yi nga xam ne yéen a ngi ñuy déglu fii ci sunu émission kàddu gu sell gi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di sant yàlla sunu borom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ bi mu ñu mayee ñu tal ko ba mën a toog fii tey ubbi ci téereem bu sell bi ci bible bi jàng ci li nga xam ne moom la ñu wax taataan ci li nga xam ne daf ñuy jëmale kanam ndaxte lépp li nga xam ne yàlla sunu boroom wax nañu ko te bind ko ci téereem bu sell bi jëmm ji nga xam ne mi ngi koy déglu mi ngi koy jëfe jëmm jooju yàlla sunu boroom nee na ay tiyaaboom ay xéewalam dana wàcc ci kawam kon mbokki auditeurs yi dañuy ubbi téere bu sell bi tey jii jàng ci li nga xam ne moom la ñu yàlla sunu boroom wax tey jii nag dañuy jàng ci kóllëre gu ñëkk gi ci nasaraan ñu koy wax ancien testament jàng ci xaaj bi nga xam ne moom lañ naan Deutéronome jàng ci aaya fukk saar fukk ak juróom-ñaar ba saar fukk ak juróom-ñeent lii la yàlla sunu boroom wax ci kóllëre gu njëkk gi ci tawreet ci xaaj bi ñu dippee Deutéronome ci aayo fukk saar fukk ak juróom-ñaar ba fukk ak juróom-ñeent yàlla sunu boroom ne man maay aji sax ji man maay yàlla maay yàllay yàlla yi man maay buuri buur yi man maa am kàttan maay ki nga xam ne awma xàjj ak seen te kenn duma ger maay ki nga xam ne danaa jox njirim àqam jigéen ji nga xam ne ñàkk na boroom këram man maay ki nga xam ne bëgg naa doxandéem te maa koy jox li muy lekk maa koy wodd dangeen bëgg doxandéem yi ndaxte doxandéem ngeen woon ci dëkku misira mbokki auditeurs yi saar yi ñu jàng yàlla sunu boroom moo ko wax du loo xam ne dañ ko jëlee ci kuréel yooyu nga xam ne dañuy sàmm walla boog dañuy toppatoo àq ak yelleefu doomu aadama ñooñu ñu ñuy wax ci tubaab organisation de défense des droits de l'homme déedéet lii yàlla sunu boroom moo ko wax te mi ngi ci tawreet te lu yàlla sunu boroom wax day nekk loo xam ne jëmm ji gëm walla bi nga xam ne boog bëgg na yàlla sunu boroom jëmm ji nga xam ne bàpp na moom kat ab jaam la mbindeef la te yàllaa ko bind jëmm jooju da ko war a sàmm fii yàlla sunu boroom tudd kenn koo xam ne ku am solo la mooy ki nga xam ne ñi ngi ko tuddee doxandéem buñ ko doon wax ci nasaraan dañ naan étranger mooy ki nga xam ne jóge na dëkkam ñëw dugg ci dëkku jàmbur mooy ki nga xam ne bàyyi na askanam ñëw wàlliyaan ci askanu jàmbur mooy ki nga xam ne ñëw na ci bërëb boo xam ne du fala cosaanoo du fala dëkk du ay maamam fala ñu nekk yàlla sunu boroom wax ci jëmm jooju ci téereem bu sell bi nee na man maay ki nga xam ne dama bëgg doxandéem yi muy wax ak bani Israël di wax ak ñi nga xam ne dañu gëm te lii may wax ñu koy jàng ci tawreet di ko jàng ci kóllëre gu yàgg gi ñu naan ancien testament di ko jàng ci bible bi nga xam ne moom mooy téere yàlla mooy waxu yàlla mu ne ci saar fukk ak juróom-ñeent da nga bëgg doxandéem ndax man yàlla dama bëgg doxandéem te yéen ay doxandéem ngeen woon ci dëkku misira muy delloo bani israel di ñu delloo ñun ñi nga xam ne ay jaamam lañu ci ni ñu meloon wala boog fa ñu nekkoon mu ne leen fàttaliku leen na ay jamono ay doxandéem ngeen woon ndaxte yéen a ngi woon ci dëkk boo xam ne du woon seen dëkk yéen a ngi sancoon ci biir askan boo xam ne bokku leen fa man yàlla mi leen sàkk ñëw fekk leen foofu jox leen loolu ni suturloo génnee leen ci loxo jaam ci loxo firaw na goreel leen jox leen dëkk jox leen suuf jox leen ay tool jox leen ay jur jox leen kàttan dooleel leen wàccee samay xéewal ak sama yiw ci seen kaw mu ne man may ki nga xam ne maay yàlla maay aji sax ji te man yàlla dama bëgg doxandéem ma waxaat ko ci nasaraan dama bëgg étranger ndax mu gën a leer ci ñenn yi nga xam ne baatu doxandéem boobu xamuñu ko yàlla sunu boroom di ñu jàngal foofu ne am na palaas boo xam ne fa la teg ab doxandéem am na cër goo xam ne bëgg na ñu jox ko ab doxandéem am na cër goo xam ne moom mi nga xam ne moo ñu sàkk te ñu ay jaamam am na cër goo xam ne jox na ko doxandéem moo tax mu dem ba nga xam ne dafa nangu ci téereem bu sell bi jëmm jooju nga xam ne mooy doxandéem ñooñu nga xam ne ñooy ay doxandéem ñu tudd leen ci téereem bu sell bi ba pare nag tudd leen ci anam yii mu leen tuddee maanaam dafa ne sama yërmande sama cofeel sama mbëggeel mi ngi ci kaw ñooñu nga xam ne ay doxandéem lañu di wax ak ñun nag nañu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen kon dee leen bëgg ñi nga xam ne ay doxandéem lañu te nekk ci seen biir yàlla sunu boroom wax lu mel noonu mu ñëw itam ci téereem bi ci bible bi ci kóllëre gu bees gi ñaan nouveau testament ci injil ci xaaj bi nga xam ne moom lañu jagleel Matthieu ci aaya ñaar fukk ak juróom saar fanweer ak ñeent ba ci saar fanweer ak juróom ñett foofu jëmu ju sell ji di Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist jàngale wax ak ay taalibeem wax ak mbooloo moomu nga xam ne ñoo ko toppoon mu leen di wax ci jëmmi jamono di leen wax ci bésu pénc ba li nga xam ne dana xew mu ne bés boobu dana am buur bu màgg bu taxaw mooy yàlla sunu boroom ne noo noonu buur bi dana wax ñi féete ndeyjoor agsi leen yéen ñi sama baay barkeel nekkoon naa ab doxandéem ngeen fat ma ci kaw loolu ñi jub dinañu tontu ne boroom bi kañ lañu la gisoon nga nekk ab doxandéem ba ñu fat la moom mu tontu leen ne leen saas yoo leen mës a fat doxandéem man mii ngeen fat fii Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist di wax lu am solo jëmale ko ci ñooñu nga xam ne ñoom ñooy ay doxandéem mu ne bis bi nga xam ne mooy bisu pénc bi yàlla sunu boroom di fay ku nekk jëfam dafay wax ak ñi nga xam ne ñu jub lañu te ñooñu ñoo taxawoon ci ndeyjooram mu ne leen agsi leen yéen ñi nga xam ne barkeel ngeen mu lim lu tax ñu barkeel mu ne leen nekkoon naa ab doxandéem ngeen fat ma ñooñu nga xam ne ñu jub lañu te yàlla sunu borom di leen teral ci bés boobu nga xam ne mooy bésu pénc bi tontu ko ne ko waaw yow jëmm ju sell ji kañ lañ la mës a fat ak fan nga nekkee ak ndoxandéem mu ne leen saa soo leen mësee fat ndoxandéem man mii ngeen fat te tey jii danaa leen ko fay jëmu ji sell ji dañuy jàngal foofu ne bu dee ab doxandéem a ngi ci sa biir nga fat ko dimbale ko teral ko kon yow yaa ngi jëflanteeg yàlla sa borom te bésu pénc ba dana la ko fay loolu la yàlla sunu borom wax loolu la ñu seydinaa isaa almasi bi yeesu kirist jàngal mbokki auditeurs yi dañu toll ci jamono joo xam ne jamono ju métti la dañu toll ci jamono joo xam ne ci dëgg-dëgg bu ñu xoolee liy xew ci àdduna képp koo xam ne gëm nga yàlla képp koo xam ne yaa ngi yaakaar ci yàlla ah sa xol war na métti sa xol war na métti ndaxte bari na ci àdduna foo xam ne bu yenn yi xewee rek bu jafe-jafe amee ñu jël ko teg ko ci ndodd doxandéem yi nekkat ñoom ñoom ñoo tax lii am lële am bari na ay dëkk yoo xam ne tey jii faat nañu ay doxandéem ci seen biir fitnaal na leen wala boog ñi ngi leen di fitnaal saa yu nekk teg nañ leen place boo xam ne dañ leen di won ne tekkiwu leen dara yéen kat bokku leen ci ñun yéen da ngeen wàlliyaan ñëw ci sunu biir yéen amu leen fi cër ñu tàmbali di leen buntu xatal ñu tàmbali di leen sonal ñu tàmbali di leen teg ay coono loolu dañ koy gis ci biir àdduna sépp ci dëkk yépp dañ koy gis sax fii ci biir Sénégal da ngay toog dégg doomu aadama ab sénégalais ne la ah sunu dëkk bi de sonn nañu ndax doxandéem yi fi nekk ndax étranger yi fi nekk waaw ma lay wax yow moom nga xam ne da nga ne gëm nga yàlla yow moom nga xam ne da nga ne da ngay wéy ci ndigaale yàlla ma lay fàttali ne yàlla sa borom mi la sàkk da ngay ab jaamam mi ngi lay fàttali ne moom mi nga xam ne moom mooy yàlla moom mooy ki nga xam ne moom mooy dogal mi ngi lay wax ne la kat moom dafa bëgg ñooñu nga xam ne ay doxandéem lañu ñooñu nga xam ne ay étranger lañu da leen bëgg ba nga xam ne da leen cëral da leen bëgg ba nga xam ne dafa jël seen àq ak seen yelleef def ko ci téereem bu sell bi ngir ñi nga xam ne gëm nañu mën a sàmm àq ak yelleefu doxandéem loolu la yàlla sunu borom wax te yolla loolu la yàlla sunu borom bëgg seydina isa almasi bi yeesu kirist ñëw yokk ci ne ci injil ci kóllëre gu bees gi ñu naan ko nouveau testament ci xaaj bi ñu jagleel màcc saar aaya ñaar fukk ak juróom saar fanweer ak ñeent ba fanweer ak juróom ñett mu ne ñooñu nga xam ne ñi ngi dalal ay doxandéem bés yàlla sunu borom dana leen teral ci kanamu ñépp te dana leen wan ne ci dëgg-dëgg loolu ñu doon def ànd na ci mbokki auditeurs yi mbokki sénégalais yi képp koo xam ne yaa ngi dalal ab doxandéem yaa ngi koy may cër yaa ngi koy wekk yàlla sunu borom nee na danaa la dalal danaa la may cër danaa la wekk te danaa la ko fay képp koo xam ne yaa ngi buntu xatal ab doxandéem yàlla sunu borom nee na yëg naa ko gis naa ko te loolu la firaw na doon def bani Israël ba yàlla sunu borom ne Moussa yëg naa dégg naa yuuxu ak métit bi nga xam ne naqar bi nga xam ne mi ngi ci kaw bani Israël te danaa wàcc danaa jàmbaarloog firaw na danaa leen goreel ñoom bani Israël ndax doxandéem lu ñu ci biir Misra ñi ngi leen di sonal kon man yàlla maa leen di fajal maa leen di fompal seen rongoñ yàlla sunu borom moo wax loolu yonentam bi Moussa ne ko jógal yónni naa la da nga taxaw ci kanam firawna da nga jàmbaarloog moom yàlla sunu borom won firawna boppam ndaxte da doon buntu xatal doxandéem yooyu nga xam ne ñoo doon bani Israël wagaloon woon di leen fitnaal yàlla jàmbaarloog moom te képp koo xam ne yaa ngi fitnaal ab doxandéem yaa ngi fitnaal ab étranger yàlla sunu borom nee na man danaa taxaw danaa jàmbaarloog yow te doxandéem boobu bu ay rongo ñoom waddee man ma yàlla man maa ko koy fompal kon mbokki auditeurs yi ñu déglu tuuti cant balaa ñuy ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi kon mbokki auditeurs yi ñu delluwaat ci li nga xam ne moom la ñu yàlla sunu borom wax te mu jëm ci àq ak yelleefu doxandéem bu ñu jàngee ci tawret ci kóllëre gu ñëkk gi ñu koy wax euh, ancien testament jàng ci xaaj bi ñu dippee Deutéronome ci aaya ñaar fukk ak ñeent saar fukk ak ñeent ba ñaar fukk ak juróom ñaar yàlla sunu borom dafay wax lii dafa ne ci saar fukk ak juróom ñaar li nga xam ne mooy àqu doxandéem doo ko ko xañ jox ko ko yàlla sunu borom ne li nga xam ne mooy àqu doxandéem doo ko ko xañ nang ko ko jox yàlla sunu borom teg ci ne boo liggéeyloo ab doxandéem bu jant fenk te fayuloo ko li nga xam ne moom nga ko ameel bi ci njëkk nee na li nga xam ne mooy àqam moom doxandéem bi nanga ko ko jox ñaareel bi mooy boo ko liggéeyloo euh, bu jant euh, euh, fenk te yow doo ko jox li nga xam ne moom nga ko ameel loolu mooy tekki lan loolu mooy tekki askan yi nga xam ne ay doxandéem a ngi ci seen biir mënuñu ne kat ñun ñi nga xam ne ñooy doomu réew mi fii lañu nekk yow mi nga xam ne yow yaay doxandéem bi nii lañ lay fii lañ lay teg ma jox ci benn misaal rek bu ñuy àtte bu ñu tëralee ay charte bu ñu tëralee ay loi ki nga xam ne doomu réew bi la ak ki nga xam ne doxandéem la ñoo ci war a yem àtte bi benn la war a doon loolu la yàlla sunu borom wax loolu la yàlla sunu borom wax mënuloo ñëw ne kat kii doomu réew mi la dafa def nii dama koy àttee nii kii ab doxandéem la ab wàlliyaan la ñëw ci sama biir bokk fi kon bu ma koy àtte nii laa koy àtte yàlla sunu borom nee na dàq naa loolu kon mi ngi delloo sunu xel ne kat li nga xam ne moom la ñuy àttee na doon benn muy ci ki nga xam ne doomu réew mi la muy ci ki nga xam ne doxandéem la ñaareel bi muy wax ne boo nga xamee da nga liggéeyloo ki nga xam ne ab doxandéem la ki nga xam ne amu fi ndey amu fi baay ki nga xam ne amu fi kenn koo xam ne mbokk la ki nga xam ne jóge na fu sori nga liggéeyloo ko ne kii kat mën naa tiyee li nga xam ne moom laa ko war a fay te dara duma ci fekk yàlla sunu borom nee na lu mel noonu boo ko defee yaa ngi def loo xam ne baaxul moo tax mu ne boo liggéeyloo ki nga xam ne doxandéem la bu jant fenk te joxuloo ko li nga xam ne moom nga ko ameel muy fàttali waa bani Israël di ñu fàttali ñun ñi nga xam ne dañu gëm ci tawreet ne kat doxandéem ku am solo la ci kanamam yàlla sunu boroom di wéy di wax ci tawreet ci kóllëre gu yàgg gi gu ñëkk gi di wax ci téere Deutéronome di wax ci aaya fukk ak juróom benn ba fukk saar fukk ak fukk ak ñeent mi ngi naan yow mi nga xam ne doomu réew mi nga am sa suuf am say tool boo bayee ba nga xam ne jamono yu góob jot na nee na bul góob sa tool yépp amal loo fa bàyyi nee na loolu nga fay bàyyi doxandéem bee ko moom bu ñëwee ci sa ginnaaw dana ko for mu am lu mu dundee mu teg ci ne boo demee di witt sa garab nee na bul witt lépp te bul ko yëngal car yi loolu la ko waxee nee na bul yëngal car yi wittal wante bul yëngal car yi na am lu des ci garab gi loo xam ne doxandéem bi bu ñëwee ci sa ginnaaw dana ko mën a witt lekk ko jëriñoo ko yàlla sunu borom mi ngi wax ne li nga xam ne ñun jox nañu ko muy teraanga doxandéem bi nga xam ne mi ngi ci sunu biir am na ci cër am na ci cër yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax nañu doxandéem bi nga xam ne mi ngi ci sunu biir nañuy bàyyi xel ci moom yàlla sunu borom mi ngi ñuy wax ne bu ñu mayee lu ñuy suturlu bu ñu barkelee nee na loolu bu mu yem ci ñun rek nee na bu ñu demee ba nga xam ne ñi ngi nekk ci sunu tool yi di góob nañu am lañu fa bàyyi nee na loolu am na ku mu ko jagleel ndaxte kooku mu ko jagleel moom yàlla daf ko bëgg nee na boo demee bay witt sa garab muy garabu mango muy garabu banaana ak lu mu mënta doon nee na bul witt lépp dafa ne sax bul yëngal car yi wittal bul yëngal car yi ndax mu am lu ci des loo xam ne doxandéem bi bu ñëwee mën ci suturlu mën ci lekk ndaxte yàlla nee na man maa ko bëgg te dama koy jox lu muy suturlaa dama koy jox lu muy lekk te danaa ko wodd yàlla sunu borom wax loolu kon ñu gis ne yàlla sunu boroom am na fu mu teg ñi nga xam ne ñooy doxandéem yi am na fu mu teg ñi nga xam ne ñoom ñooy étranger yi ñu toll nag jamono yoo xam ne dañ leen di fitnaal ndaxte yenn saa yi nga gis ci koo xam ne yàlla sunu boroom barkeel na ko ba mu am lu bari bu ñu deful ndànk ñu tàmbali di ko xool bëtu kiñaan ñu gis ci ñoo xam ne ñi ngi ci sunu biir yàlla sunu borom di leen may lu ñuy suturloo ñu tàmbali di leen ñàkk wekk tàmbali di leen xoolee bëtu kiñaan yàlla sunu borom ne boo defee lu mel noonu mën nga ko def te bés danaa la ko fay yàlla sunu borom di wax ne kenn du xool warul xool ab doxandéem di ko fitnaal yàlla sunu borom nee na waruloo xool ab doxandéem di ko fitnaal loolu mu wax ko ci tawreet mu wax ko ci xaaj bi nga xam ne moom la ñu tuddee lévitique mu wax ko ci aaya fukk ak juróom-ñeent ci saar fanweer ak ñett yàlla sunu borom ne bani Israël ne ñi nga xam ne dañu gëm mu ne leen doxandéem ngeen woon ci biir misra ñu fitnaal leen kon bu leen fitnaal mukk ab doxandéem bu leen fitnaal mukk ab doxandéem nee na leen dañ leen daan fitnaal ma ñëw yëg coono gi nga xam ne moo nekk ci seen kaw ma wallu si leen génnee leen ci fitna googu ngeen nekkoon dugal leen jox leen aafiya goreel leen mu ne kon bul fitnaal mukk ab doxandéem bul fitnaal mukk ab étranger yàlla sunu boroom di ñu wax ne moom mooy yàlla ji nga xam ne dafa bëgg ab doxandéem loolu mooy lan dañuy delloo ci boppam ne ñu kat man ni ma leen bëggee bëggee leen noonu yàlla sunu boroom jël ay charte yu leer ay digaale yu leer def ko ci biir tawreet def ko ci biir kóllëre gu ñëkk gi jàngal doomu aadama ñi nga xam ne dañu gëm te ay jaamam lañu naka lañu war a jàppee ki nga xam ne ab doxandéem la yàlla sunu boroom nag bu waxee lu mel noonu jëmm ji nga xam ne jëmm jooju mi ngi sàmmonteeg aji sax ji loolu nga xam ne wax na ko ko jëmm jooju yàlla sunu borom da koy barkeel askan bi nga xam ne mi ngi sàmmonteeg yàlla sunu borom loolu nga xam ne wax na leen ko askan boobu dañ koy barkeel yàlla dana ko barkeel di wàccee ay xéewali xéewali xéewal ci seen biir wante askan bi nga xam ne mi ngi fitnaal ñi nga xam ne ay doxandéem lañu yàlla sunu borom nee na kat loolu yëg naa ko te bés danaa leen ko fay te léegi àdduna dañu toll foo xam ne am na ñu bari ñoo xam ne ndeysaan dañu sonn torop dañu sonn am na dëkk yoo xam ne tey xeex guerre bari na fa am na dëkk yoo xam ne ndóol itam am na fa da ngay gis màgget gis waxambaane gis góor gis jigéen gis tuut tànk jël yoon yi dox lu sori ngir dem ci yeneen bërëb yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu fa yeggee danañ am jàmm ñu mel noonu de bu ñu yeggsee ci yow nga dalal leen ndaxte ku leen dalal Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist nee na man nga dalal te bisu pénc bi danaa la ko fay ci kanamu ñépp da ngay gis ñoo xam ne amatuñu fu ñu jëm da ngay gis ñoo xam ne coono bi métti na métti na seen kaw ñu daw ñooñu kay képp ku gëm yàlla da nga war a am yërmande dalal leen képp ku gëm yàlla da nga war a am yërmande toppatoo leen képp ku gëm yàlla da nga war a warmaal jëmm yu mel noonu da nga leen war a wekk yàlla sunu borom di wax ne doxandéem dañ ko war a yërëm dañ ko war a laabire dañ ko war a wekk dañ ko war a teral dañ ko war a fat dañ ko war a may jàmm yàlla sunu borom dañuy fàttali ne du caageenu ñeneen ñoo wax moom moo wax du caageenu ay kuréel yu fu nekk naan dañuy sàmm àq ak yelleefu doomu aadama déedéet moom ci boppam moo wax te bi mu ñëkkee wax jëm ci doxandéem yi ni mu leen ko jàngalee sànq ci tawreet ci Deutéronome aaya fukk saar fukk ak juróom ñaar ba ci fukk ak juróom ñett dafa ne man mi nga xam ne maay aji sax ji man maay yàlla dama bëgg doxandéem dama leen bëgg kon yàlla mi ngi leen di xool yàlla da leen teg foo xam ne place bu kawe la te képp koo xam ne da nga bëgg yàlla képp koo xam ne da nga bëgg a nekkal yàlla kooku da nga war a jël li nga xam ne daf ko wax nga koy def nga koy sàmm nga koy dund kon yàlla nañu yàlla sunu boroom dimbale ba nga xam ne du ñu du am dara loo xam ne dana ñëw ba yàq sunu diggante ak ñi nga xam ne ay doxandéem la ñu nekk ci sunu dëkk bii di Sénégal yàlla nañu yàlla dimbale ba nga xam ne danañ leen laabire yàlla nañu yàlla dimbale ba nga xam ne danañ leen dalal dalal bu baax yàlla nañu yàlla dimbale ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ ba nga xam ne ñooñu nga xam ne dañu daw ndax coono bi ñu sonn seen dëkk ñu teral leen ñu may leen jàmm ñu defal leen ba nga xam ne ci dëgg-dëgg danañ yëg ne kat ñoom bokk nañu fii yàlla sunu borom nee na doxandéem bi da nga koy boole yàlla sunu borom nee na doxandéem bi da nga koy boole ci sa bopp da nga koy may cër da nga koy def ne doomu dëkk bi yàlla sunu borom nee na loolu laa xaar ci yéen kon yàlla na askanu Sénégal. teg tànkam foofu nga xam ne moom la yàlla sunu borom wax ne teg leen fa seen tànk digg seen diggante ak doxandeem yi yàlla bu mu am dara loo xam ne ñëw na ba dox sunu diggante ñi nga xam ne dañu daw seeni dëkk ñëw làqatu si ci ñun yàlla nañ leen fat yàlla nañ leen làq yàlla nañ leen di dimbale yàlla nañ leen di won mbëggeel cofeel gu rëy yàlla nañ leen di ñaanal ñoom itam ñu am lu ñuy suturloo yàlla leen yàlla barkeel ñoom it fii ci sunu dëkk Sénégal bi ñu nekk yàlla buñ leen iñaane mukk yàlla buñ leen fitnaal mukk mbokki auditeurs yi ma leen di sant di leen gërëm ci déglu bi ngeen ñu déglu te di leen fàttali ne lii nga xam ne waxtaan nañ ko tey jii du sunuy kàddu wante dañ ko tibbee ci téere bu sell bi nga xam ne mooy biibal bi yàlla sunu borom jaar ci foofu wax ak ñun jëmm ji nga xam ne nag bëgg na ëllëg bisu pénc bi ci kanamu ñépp yàlla sunu borom teral la yëkkati la jëmm jooju kon nay teral nay bàyyi xel ci ki nga xam ne doxandéem la ci ki nga xam ne étranger la nekk ci biir dëkk bi yàlla nañu yàlla sunu borom barkeel yàlla nay wéy di wàccee ay yiwam ci sunu kaw yàlla na barkeel askanu Sénégal ndaxte fii ñu laabiir lañu dëgg-dëgg yàlla na yàlla wéy di ñu may lu ñuy sutur la ba nga xam ne danañ ko yaatal jox ci ñi nga xam ne ay doxandéem la ñu nekk ci sunu biir ci darajay Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ amin mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35